bokkul làmb ji pour may bañ a ay tur di am ñu may bàyyi amul kenn kenn kenn ku manqué adversaire yi nga xam ne day dañ am nañ fi tàkku saan yu ay Balla Gaye Modou Lo Lac de Guiers numéro 2 ñëpp dafa mel ni médecin bi dafa jékki-jékki na ma il faut que tey ma génnee la bi parce que affaire bi commencé na dégénérer parce que fii actuellement nii gars yi dañuy ñëw di xeex vigile pour dugg parce que pour dugg par force. pour xool noo mel. kon boog il faut que ñu trouver xam nga. Mm-hmm. ba ma dem clinique internationale. Mm-hmm. am fa 19 jours def sama ay kii xam nga. yow giri xaw nga dee dee. Mm-hmm. Ah, mais sant yàlla. <laughs> gisoo ci ay séquelles yoo xamante ne dina la dal te daanu la dal avant accident bi wala biñ la fajee ba pare tout va amul lenn loo xam ne. waaw xam nga moom ne mi ngi lay dal. côté médecine moom continue la rek. di ngay tester sa bopp parfois nii nga dem def ay euh, séance d' yoo xam ne xool sa. bon docteur Goro maa ngi koy nuyu de passage. suma médecin la c'est l'ami intime de Abbas suma suma suma suma suma suma président écurie suma tailleur bi may ñëw invitation bi dafa gaaw trop. mënu ma jaaral atelier ma jox la am lu ma créé rek jox la. ma ñëw rek mu solo mi. macha waaw c'est non sama xarit la. suma président écurie la sama frère. am depuis affaire bi ma amee pour nga xam ne nit ñi moom. mooy loolu. soo ami intime docteur Gora moo jël en charge. avec euh, mon frère suma conseiller suma tuteur suma lépp euh, Demba Ka. bëggul sax ma bëggul sax lu baax li muy def ci doomu aadama yi sax bëggul ko ko tudd. mais nag euh, ku dul wax ku dul sant doomu aadama doo sant yàlla. déedéet waaw Demba Ka coono yu méttee métti métti métti métti investissement bu énorme la def. ci suma feebar boobu macha allah. médecin bi lépp moo ko jël en charge. sant yàlla xanaa dootoo bëre Eumeu Sène. non Eumeu Eumeu sama mbokk la. yàgg na am sympathie sama diggante ak moom te dëkkuñu. combat yi ñu bëre man ak moom mooy combat yi gën a métti ci làmb ji. ñaari yoon lañu bëre man ak moom. suñu premier combat ma daan ko suñu deuxième combat moom mu daan ko mais dañu suñu diggante dafa mës a am sympathie. yàlla dox nag ba tey ñu dëkk ñu dëkk suñu diggante ma ak moom bu yuuxoo ma dégg ko le problème problème histoire wane na boppam bi ma li dalee avant sama benn mbokk li joom moom moom moo taxaw mhm. sama ay mbokkam dañuy fréquenté ay doomam sama biir kër lañuy fréquenté mhm. samay doom dañuy dem këram mais boo bëggee titre bi mu am ak moom non bëri moom moom mënutul am mhm. te mënutul nekk. kon mën nañu bañ a xalaat Gris Bordeaux roi des arènes. non roi des arènes roi des arènes wala ci moom dem ci keneen nga daal. roi des arènes moom bu ko yàlla bu ko yàlla tuddee doomu aadama moom. bu ko yàlla tuddee ci moom. day nekk lu yomb. parce que mm-hmm. bul bay tourné la rek ba yegg ci yow. parce que ñun mbëri mu mbëri yegg yegg au sommet dañuy daanante suñu biir rek mhm. boo xoolee kii day daan kii kii daan kii kii daan kii ñuy daanante suñu biir mhm. mais roi des arènes moom bu waree ñëw ci yow day day ñëw ba yegg si ci yow nga téye ko voilà avant balaa ñu jox kàddu gi euh, euh, Bakary léegi nooy xoolee courant courant waaw euh, maa ngi salué de. <laughs> salué de passage. maa ngi salué de passage Makhtar Cissé Makhtar Cissé. monsieur le ministre. il est ministre. ministre. Euh, mhm. énergie de l'énergie de l'énergie wax dëgg yàlla bu mbir mi amee avant élection yi def na délégation bu énorme ah. mhm. ak ay nekku fu woon envoyé ay directeur am. Mhm. ñëw seet ma waxtaan ak man sama xarit la bu yàgg. depuis depuis euh, depuis. depuis longtemps. depuis euh, douane. mu nekk douane. xarit nekk suma ma ni. li la dal partagé naa ko ak yow. waxtaan ak moom yónni ay presque képp ku nekk chef Sénélec rek délégation bi ma ko gisee dama jaxasoo. parce que plus de cinquantaine de personnes. parce que léegi ay ambassadeur courant. am la loolu laa la wax. <laughs> mais boo xefee élect boo xefee affaire yi arène laa koy soppi sànq ba léegi yaa ngi may yaa mais xamoo grillé grillé boo ko grillé amul problème <laughs> xam nga xam nga am personnel am bi ñu ñëwee dama leen li coow li di bëri yëpp courant man maa ko war di publicité ci wax yéen waroon kenn waratul publicité courant parce que courant man la amal affaire. yaay borom courant. man la courant man maa war a nekk ambassadeur courant parce que courant man lay jëflanteel mais femme femme bi dafa ree tëdd suuf pour nga xam ne rek doomu aadama mbokk. sant eh, nit ñi garabam te ñu sant yàlla. ñu yàlla maye kattan bu ñu ñëwaatee. Mhm. wax dëgg yàlla ak doomu aadama yi. Mhm. bi nga xam ne. Mhm. moo tax daal Pape nañ góorgóorlu. bëggante. yéenante jàmm. parce que loolu rek. loolu rek moom loolu rek moo ñu des dëgg. Sénégal am na jàmm de par rapport avec par rapport avec les autres pays africains de. am na jàmmaa ngi fi de. li ci des rek mooy nañu bëggante. ki bokk ak sa morom société. bokk ak moom liggéeykaay bi dañu yéenante jàmm. parce que yàlla mën naa la waatal ci yàlla ni gal am dafa am doomu aadama yoo xam ne seen galaaju bopp. galaaj bi gën ci galaaju doomu aadama. mooy li nga yéene sa bopp nga yéene ko doomu aadama soo ko defee rek da ngay noppalu ko loolu nag wax dëgg yàlla ngeen ci gën a góorgóorlu voilà c'est ça les aléas de la mora ah. boo demee ba séen ko rek da ngay delluwaat ci yàlla quoi finalement waaraate kat la léegi moom ngir <laughs> on balaa ñuy jëlaat kaddu bi à euh, Bakary qui est spécialement aussi pour ça euh, bëri na ay laaj yoo xamante ni bëgg ko laaj Bakary. waaw man euh, li ma bëggal njëkk laaj Gris Bordeaux moom. Bakary dafa <laughs> kay Bakary li ma ko bëggoon laaj ñaata lay gagné ci Sadio Mané. <laughs> non Bakary kay lii laa koy laaj après ca kanam laa koy laaj. Gris man li ma la bëgg a laaj mooy. <laughs> déjà di la féliciter ni nga doone ni ñu la tàbbee déjà président. Euh, de l'association des lutteurs euh, en activité. Mm-hmm. léegi yow yaa ngi en activité est-ce que tey am nga jotu nekk au service des lutteurs en activité est-ce que loolu tamit du la gàllankoor un peu mooy sama premier laaj. waaw loolu moom. Mm. loolu mission la rek nekk naa ci bien avant que ñu ma koy euh, ñu mm-hmm. parce que tamit bon man pour man mbir moom waroo ci mën a nekk rek. Mm-hmm. yàlla teral la. te bu ñu xamee tey làmb moo tax ñu xam ne tey fépp fu ñu dem ci àdduna ñu ñu honoré làmb moo tax te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax regretté wuñu ci dara ci ñu ci duggee jusqu'à présent tey nag mbir moo ci nekk nag bon di ci bay sa waar parfois mu am ay mu am ay problème yu ci nekk yoo xam ne problème yu ci nekk mën nga muñ mën nga muñ say morom ci nekk mais nag Euh, objectif yi du benn. Hmm. problème yi si am. bien avant que. merci hmm. nekk naa ci. Hmm. di dox benn rôle boo xam ne. comme samay moroom yëpp. engagé wu ci benn côté. gis ci loo xam ne tey dafay dafay gangrène affaire yi. ba taxaw ci rek. j'étais seul ah. bi ma nekkee ci loolu j'étais seul euh, ténor bu ci nekkoon. Mm-hmm. ak suma ay frères suma ay xarit de Xaalim Gajaga les. Euh, mm-hmm. gars yu bëri yoo xam ne daal nekkoon nañ ci. gis ni làmb mu ngi am ay jafe-jafe mbër ñu ngi am ay jafe-jafe si seen liggéey. ñu taxaw di di def ay revendications. loolu nag moo ñu permettre tey affaire yi am stabilité ci côté yu bëri te loolu nag maa bien bien avant ñu naan Gris le président des lutteurs en activité. maa ngi mëne woon benn combat. loolu conviction la woon ah. conviction la woon bu mu àndaloon. te yàlla may nu si dal a fekkee. est-ce que du loolu moo moo moo jur ñu def le président des lutteurs. Euh, en activité. combat bi nga doon mënee mën nañu ju rappelé ko téléspectateur mooy combat bi nga doon mënee ci diggante lutteurs yi ak CNG surtout dagg yi ñu leen di dagg ci seen euh, combat yi nga xam ne doon koy am. non j'étais pas le seul lutteur. Mm-hmm. non bari na waaw association mais yow lañ ci doon gën a gis ngay fës dañ koo xamante ni vraiment dañ ci dañ ci nekkoon liggéey. non peut-être baa ci nekkoon leader. moo taxoon ma gën ci fës mais. mais yaa ni woon CNG ay sàcc lañ ma. moo ko waaw loolu la quoi <laughs> loolu. loolu moo tax nga wax CNG ay sàcc lañ waaw. non loolu histoire ancienne loolu. parce que tamit xuloo xuloo la. dëgg la xam nga xuloo moom xam nga. xuloo pour lu bari la de. xam nga li ñuy li ñuy loo for sànni CNG CNG on n'est pas des ennemis. waaw mm. ah, wax ju mel noonu doo ko gratuitement dina am lu tax nga nga jékki-jékki jug wax ko même bu dee xuloo ah. non xuloo maanaam tey xuloo. Mm-hmm. da nga naan rek tous les moyens sont bons pour euh, déstabiliser kii. l'adversaire adversaire mm-hmm. mais tey. xam nga on est en paix. Mm-hmm. on est ak ñoom. Mm-hmm. parce que jàmm ci la lépp xaj. dëgg la de li ñu doon revendiquer mooy lan suñu biir liggéey yéen tey ñii ma ñaanu ma ko yàlla boo leen demoon ba santé ni fii liggéey bi xam nga gisoo leen seen bopp mi ngi metti ci yéen. Mm-hmm. bu bu ñëpp kaasu dina am ñuy ngurnguni ci suuf. dëgg la de ñun demoon benn instant sentir ni affaire yi mi ngi metti suñu côté. yooyu bëree làmb ba pare dooroon takkusaan yu métti dooroon ay kurpañ ba boo yeggoo boo yeewoo suba teel sël mu sax da lay ñu dagg la 5 millions wala ñu dagg la 6 millions wala ñu dagg la 7 millions xam yooyu moo doon metti mais finalement tey xam nga yàlla def na ci jàmm quoi. Mm-hmm. ba nga xam ne nit ñu jox nañu nopp xam ngay yuuxu nga yuuxu te kenn mënul te kenn mënul laa dégg façon façon yuuxu bu ne nga yuuxoo mais nag loolu trouvé na tey ba ñu ba ñu bëri am changement ay réforme yu bëri am ci làmb te coow jibul ah parce que CNG suñu ay kilifa lañ la tey jox nañu bopp ba ñu déglu loolu moo jur lii tey. tamit justement sur le plan sportif man li ma la bëggoon laaj mooy euh, ñëpp gis nañu ni Ama sa combat ak Ama Baldé taxawoon na benn instant. mais da nga jékki-jékki yoxosu bëggoo dajee ak boy bi ndax danga ragaloon ni bu la daanee nga dugg si saako bi ou bien da nga yàpp jàpp ni waxtu wee jotagul pour pour daje ak Ama. yow foo déggee di taxaw. mais dama ko déglu <laughs> journaliste laa ko mais dama dégg. dégg waaw da nga da nga dégg naa da nga daw. da nga daw combat bi fii kon ko ah. waa léegi sa combat ak. boo déggoo da ngay waaw dégg ko leeral leeral donc leeral ñu. in jaakum faasiqun bi nabain fatabayyanu la. kon kon leeral na. ambassadeur ambassadeur itinérant du Coran. <laughs> ay ay boobu xamul doomu wàcc. waaw. information. Hmm. in jaakum faasiqun bi nabain fatabayyanu. Hmm. maanaam boo déggee lenn rek. xamaa hmm. nga ci àddu rek. na ko gistu kon ça veut dire que. combat boobu ñu yàgg nañ ko ngungunee. mais dara taxawu ci. combat bu taxaw moom da ngay dégg ni mbër moo gën a yàgg am di combat bu taxaw. bu taxawoon est ce di nga est ce pare nga bëree am am Ama Baldé. pare bëri Ama Baldé mais wax man man bëri di sama métier. sa métier yow li ngay xëy di liggéey bi mooy yow <laughs> yow boo liggéeyul doo am xaalis hmm. ñun buñ dóorantewul ay copains ñu am xaalis <laughs> kon kay loolu dafa am loolu kay xam lu di waxee tëjal buntu bi xaw ma lu mu dalee di hmm. bëre suñu gagne-pain la hmm. te làmb ñett moo ci am mooy say moroom bëre say mag bëre ak say rakk mine de rien def nañ ci man def naa vingt ans vingt et un ans de carrière. 96 mhm. laa commencé. yàgg nga ci ah. comprendre dama teel a bëri bu may bëri 16 ans laa. Mhm. comprendre jusqu'à présent macha allah maa ngi ci dégg ay coono mais combat. Mhm. d'habitude boo déggee combat rek ñu koy nga koy dégg ci journée yi de gauche à droite rek xamal ni. ki ko bëgg tëgg nekkul ci lu wóor. làmb li ñu ciy wax rek dañ dañ naan day jékki-jékki xëy rek aussi. combat boo xam ne da koy soxla ak say morom dañ koy def ci suuf li jënd ko ba mu taxaw rek jékki-jékki na combat ba taxaw combat boobu amul lenn lu ci aw ma ci woon benn dama ci mës a am xel ñaar parce que ñi ko doon dox nekk ñu woon ci lu dañ doon wax nii rek xam nga moo taxoon amul woon lenn moo tax soriwuma ci woon sax. Mm-hmm. combat lamb suñu suñu métier la. mais actuellement nii ban combat moom lañ jàpp ni Gris Bordeaux mën nañ ci wax ni avancé nañ ci euh, combat bu nga xamante ne taxaw na pour bëri ko. Mm-hmm. bon parfois gars yi wax ma komba Gris Bordeaux. Tapha Tine. Euh, Bombardier parfois ñëw di ma wax Gris Bordeaux Ama Baldé mm-hmm. dégg naa ko plusieurs fois promoteur certes na plusieurs fois ñëw wax mais xam naa lii muy wax nii. teguwul ci nekkul lu mu wax moom. dégg-dégg moo ëpp solo. xam nga ñoo li mu wax bu demee di nga xam ne kii li muy wax day xam nga ay waxam daal mooy loolu quoi. mais daal en tout cas daal euh, lay nuyu te di la ziar. la dalal bu baax. dama la bëgg laaj seen biir kër muy Fass. ngir yow da nga bari histoire wala bolok bi nga àttanu ko. parce que ngir lu ci ëpp ku génn dem rek dina ne yow la amal problème. Mm-hmm. benn muy papaas Balla Diouf moo jiitu. ku nekk gis na Balla Diouf sa Darmen la woon. naaj mm-hmm. foo deewee mu ci wet wax. Euh, Darmen bi mu demee daf ne dafa am mbett ci yow. donc bu nekkoon lu choqué woon ñu bari ba Balla booy xool daanaka ci la carrière am jaaree. ndax nit ki dafay am suuxa du ci mbëggeel rek mais dafay am ba ci mbëggeelu ay xarit. Mm-hmm. ku nekk gis Papa Sow mënoon na fanaan ci mbedd ngir yow donte la ngeen seq ñun xamuñu ko woon ci biir. Mm-hmm. mais li ñuy gis ci biti. ñu xëy benn bés ñu ne Papa Sow yow yaa ko xatal ba mu dem. ñu gis benn booy bu jóg ba xaw la dab rek day mel ni giri dana ñëw ànd ak yow ci stade bi fecc fecc mu neex moomu jaayu mais ci suuf day xaw a téq say tànk ba ci ki ñëpp gënoon a am yaakaar muy Lac Rose mais ñu gis na yow ba nga sóoroo waa ji ñing ba tey Moussa ñing ba tey dafa mel ne bloc bi moom même bu tooyeet amagoo ci li la neex tontu ma ci loolu euh, si moo moo <laughs> rëy wax <laughs> borom musóor bu xonq bi moo rëy wax moo rëy wax bu ko <laughs> tudd làmb làmb kër kër goo gis ci àddina. dafay am ay day am ay ay coow yu sew. Mm-hmm. ay riita mbale. waaw mënul ñàkk. ñu mm-hmm. ngi ci biro yi mi ngi ci këru diine yi ñu ngi ci kër fépp. Mm-hmm. que ñoo bokk fi ñu nekk ñoo bokk liggéey yàlla natoo ñu làmb. waaye nag da bokk ak nit ndey ak bàyyi sax te doo leen bokk ay jikko. loolu mhm. ça veut dire que man làmb man dama naan man bis bu ma bàyyi bëre. Mhm. man dama war na ma mën a war naa mën a bind livre ci suma carrière parce que man dama naan rek bokk sama ñi ma xam dëggantaan jege ma xam na ni euh, carrière bu méttee métti métti métti métti mbër mënu maa gën a ëppale carrière bu compliqué. waaw ah, dafa fekk nag parfois dama nekk ci équipe bu mag ma nekk équipe bu mag ah, ñu yar la xel rek ngay demee ñooñu tey muy Balla Diouf muy Papa Sow muy Lac Rose muy bépp mbër boo xam ne rek sama gannaaw nga nekk man li ma nangu biir équipe Fass mbër du ko fa nangu mu lul nekk su ma muñul woon tëdd gaa yi jaar sama kaw. chaque jour nga dégg ni Fass ña ngay reyante mais nag man maa bon am na benn éducation de base bu nekk ci man dama lay wax ni doomu daara la alquran moo nekk suma dënn bi. waaw alquran moo nekk sama dënd man am naa fi toog ni man toog comme ni ko mbër yi di waxee ñi naan xaalisu làmb lañ ma ngénte man am naa fi toog na xaalisu alquran lañ ma ngénte. macha allah. kon ça dii dire que man am naa éducation bu nekk ci man boo xam ne amul doomu aadama bu mën a nekk bu mënu nekkal ba nga xam ne Fass écurie bu mag la waaye am na écurie yoo xam ne coow la fa am ak problème yi fa am car bi sax Fass am ko. est-ce que du da ngaa teel a sol bolok bi rek kon tamit. bolok bi bu ma ko sol ku koy sol jëlal keneen rek nga solo ko bolok bi. boo génnee Gris Bordeaux nee ma diw ma war a sol bolom bi. mais Gris li ñuy xaar ci ci ci bolom boobu kon mooy écurie Tigre Tigre de Fass li ñu ciy xaar depuis bi nga ko solee ba léegi si amateurs yi wala supporters yu Fass yi gis nga ko wax nga ko léegi nee nga Fass écurie bu mag la mais li ñuy xaar ci yow mooy ndam. depuis bi nga ñëwee amagoo ko foofu biir Fass donc yaa a problème ci biir écurie bi. est-ce que bi muy tey laa gën a mën a tey laa gën a tey laa gën a jaxasoo ak moom Euh, écurie Fass écurie bu mag la mais lu ak lu mu di xew mooy la nekkoon ca Tafa Gueye wala la nekkoon ca Mbaye Gueye à l'époque mënul nekk ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux la dëkk juddoo fa yaroo màggee fa kenn bëriwul ci làmb ji pour boo bëree boo bàyyee bëree nga dem toog fee sa kër nga dem toog làmb dama am sama benn grand moo seet mënu ma yi bëri yi ngeen di bëri di daananteeg kii daan kii suba kii loolu du gañe xamul muy gañ mooy boo bàyyee bëri ba croiser le bras nga ne lii ak lii ak lii ak lii laa investi ci làmb Gris Bordeaux esprit mental boobu la ba nga xam ne làmb dugguma ci wax dëgg yàlla pour gulwaar gulwaar gulwaar gulwaar Gris Bordeaux Gris Bordeaux Gris Bordeaux bàyyi bëri ëllëg maanaam bëri ay mbër dal bëri na mbër yu mbër mu fi dal tey man indépendant boobu laa mësa suma diggante ak yenn rupture yu bari au niveau de Fass loolu mooy base fondamentale bi parce que tamit la Fass ñi jege dëggantaan xam nañ Fass coow li fa am mënu ñàkk comme yeneen kër yëpp mais li am importance mooy ñun mbër yi mosuñoo am problème ci lenn nag ci benn problème muy Papa bi ngay wax Balla Dioufoo ay circonstances la rek. Mhm. parfois lamiñ ak gémmiñ ñoo dëkk mais des fois dañuy laalante mais Balla Diouf tey. peut-être ci association bi rek peut-être lu may dem doxi peut-être mooy nekk sama wet ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais Fass moom wax dëgg yàlla yeneen écurie ko ëpp problème foofu. man man lu ma jaaxal mooy euh, en dix ans ñaari victoire rek nga ci am est-ce que réellement Gris Bordeaux mun nañu wax ni VIP nga. non VIP. le mot VIP very importance. personnalité personnalité waaw. loolu moom ça n'a rien à voir. non non non mais attention. ni ngeen ko jëlee si làmb ji doo leen ko jëlee noonu de làmb ji da nga jël VIP mën naa wax ni les ténors de la lutte ñoom ñoom ngeen di tuddee VIP donc en dix ans nga am ñaari victoire est-ce que Gris Bordeaux yelloo na euh, euh, titre Gris. gris de euh, gris euh, mu tudd euh, tigre de face et VIP parce que man VIP bi very important personality ak VIP nekk ténoru làmb c'est c'est deux choses différentes léegi yéen VIP da ngeen jël ngeen jàpp jàppee ko ni mooy les ténors de la de de l'arène léegi yow en deux en dix ans nga am ci deux victoires yow sa bopp nan ngay jugé sa bopp. li may jugé sama bopp ci làmb lañ nekk tey mbër yi nga compter. kan ak kan ak kan ak kan stade amitié du caaxaan stade ba bi passé ak Balla Gaye. day fo contre performance. sport individuel collectif yaa dee wooy dee baax. man ñaari yoon laa bëri stade amitié amitié amitié ñaata xam nga ñaata. cent mille places cent man diggu Ndakaaru laa dëkk Medina laa juddoo yaroo fa màggee fa su ma jógee Ndakaaru day jóg. du question mais mais doguma la pour relancer. non bàyyi ma ma bàyyi ma ma tontu non damay fàtte damay bañ fàtte. demal bàyyi ma ma. parce que ñooñu la ngeen yooyu ñoo doon lakk say t-shirt. bàyyi ma bàyyi ma ma daaneel ba pare. yow mun naa def ak yow. Mhm. loo baax ma ngeen mais femme bi lu mu ak yow nii. non non femme bi dafa garaaw. non garaawul sax continué demal demal. xam nga c'est que dafa garaaw quoi. non non garaawul ay lakk ci ak ay <laughs> maanaam tey uh-huh. ci làmb sport Real Madrid su mooy suma équipe damay jox exemple nag ci Real Madrid actuellement ni est-ce que day dox dafa tere Real nekk ak équipe bu mag Real Madrid kañ la troisième la nekk actuellement léegi yaa ngi koy bëgg a rey mais démbul équipe bu mag la woon. waaw ba léegi nekk contre performance dafa tax ren moom waxuñu waxu waaw wala nu ma lay bëgg wax ci sport moo am parfois y a des hauts et des bas parfois sport amul parfois dafay surtout individuel. mais en dix mais normalement ooyee war a ëpp que bàyyi bu fekkente ne yow euh, yaa ngi nekk équipe bu mag wala mbër bu mag. mais tout récemment man man sama dernier combat xam nga mbër loo koy jugé son dernier combat. man hmm. sama dernier combat bi. Ah, sa carrière la ñuy jugé kat. non carrière non mën naa ni man bokk naa ci mbër yi gën a riche carrière du question ay bëreeg daanu am na mbër yoo xam ne fii dañ leen nommé combat man combat bu la moo tax man bokk naa ci mbër yi nga xam ne. bokk naa ci mbër yi nga ñu promoteur yi gën a daw man mine de rien euh, bi ma bëreeg léegi amul promoteur bu ma seet siwul mais giri ñun journaliste sportif yi xam nga non dama la amul promoteur bu ma seet bu nekkoon bu nekkoon xam nga promoteur lu mu la seetee mooy nga mën a mbooloo nekk sa gannaaw ba pare boo bëree def yi fu ndaanaan man de wax dëgg yàlla làmb mbër boo fi damel combat Gris Bordeaux barke Cheikhou Tidiane billaay wallaay ay mbokkam duñ nelaw de. mooy nga daan ma nga ñàkk ma daan. musuma bëree wane yaafus moo bëree sama combat day mel ni talatay ndeer mm-hmm. loolu la ñu toppee la moo tax mbooloo bi nekk sama ginnaaw su ma jógee ndakaaru jóg da nga yaakaar am jotu ànd ak mbër moo xam ne day dem làmba ji di kaatandal rek wala di arrière rek di daw ci saako yeeg yooyu c'est pas comme ça ak lu mënta xew mooy Gris Bordeaux moom restera toujours Gris Bordeaux tàkku saan bu ñu ma tëggal combat ah. moo xam Gris da koy daan moo xam mu daan la mm-hmm. mën naa la waata ci yàlla ni mosuma génn làmb ñibbi sama kër ñu jëppi ma mais Gris yow. mooy man ñu daan ma. Mhm. loolu mooy làmb. làmb amul leneen. Mhm. tey mënoo ma loo moins de quatre vingt millions wala cent millions. kon ay affaire VIP yooyu ay deuxième la. Mhm. mais donc non donc Gris yow man si te comprends bien. de toute façon c'est un débat boo xamante ni ça risque d'être un débat absurde mais c'est pas grave man léegi li ma jaaxal mooy fonctionnement wu écurie Fass. Euh, gis nañu ni euh, ki mel ni Papa Sow day valser entre seen écurie Fass ak Rock Énergie muy jàppale Modou Lo te yow Modou Lo sa potentiel euh, adversaire la en tant que leader de l'écurie Fass ban jàngat nga ci am dafa mel ni Fass amuñu courage recadrer kii kii di tab Papa Sow ou bien yéen da ngeen di bàyyi Papa da ngeen koy bëgg a pousser vers la sortie man loolu laa bëgg a xam. non le cas de Modou Lo hmm. lañ. ay dëkkandoo lañ tey. loolu dëgg interpellé mu ci plusieurs fois. Papa Sow ku ko xamoon diggante moom Modou Lo xamoon ni ay bête noire lañ woon. dafa meloon nii Iran Irak mais dem nañ ba benn période dëkkandoo da li may wax ci dëkkandoo rek dem na ba benn instant xam ni seen bëre ñoom ñaar day déstabiliser biir parcelle am na loo xam ne nag même boo ko nangulu nit ki di nga xam ni àddina moo tolloo noonu. tey di man gêné wu ma ça me dérange ça dérange pas parce que dëkkandoo moo gën a foor lépp parce que ñoom ñaar bi ñu nekkee ay ay potentiel adversaire jàmm mosul dox seen diggante ñaar yi te sorante wuñu bu ñu demee nag tey nag ba ñu jël seen benn li def cent pour cent Parcelles Assainies non dañ ko ko nangul man loolu dama ko jël avec philosophie franchement. Mm-hmm. est-ce que tamit da nga jël avec philosophie euh, euh, euh, ki ki nga xamante ni mooy Moustapha Guèye bi doon tàggat Balla Gaye bu muy waajal combat ak ak Modou loolu ban jàngat nga ci amoon tamit bëgg naa la ko laaj bu baax. wax nga loolu moom ni laa ko gisee comme ñëpp rek te loolu je suis mal placé ci xuus loolu. Hmm. ah mais la tax. ah mais loolu ni nga ko gisee laa ko loo ci bëgg ma wax ci. yow ngay non écurie Fass ngeen bokk moom mooy directeur nga nekk ténoru écurie Fass. yow nga nekk hmm. ak Modou Lo. Hmm. moom muy entraîner Balla Gaye contre Modou Lo war nga ci mën a am xalaat. non loolu pour man je me si dit que loolu njumte la rek. njuumte la bu jóge ci moom parce que tey mënul nekk mënul nekk directeur technique booy di mm-hmm. njuumte la ah doomu aadama ku dul juum amul ah mm-hmm. peut-être euh, am ci moom sympathie wala man mm-hmm. xam wala peut-être yërëm ko ci bésam boobu mais loolu pour man njuumte la te xam naa ni si c'était à refaire du ko def parce que mënuloo nekk directeur technique bu écurie Fass di di di tàggat di tàggat Gris Bordeaux Gris Bordeaux suba day bëriwaat Balla Gaye comprendre loolu njum kon mën nañ ci déggee boo demoon ba war a sëggaat ak Balla Gaye su Moustapha Gaye ñëwoon ci sa entraînement di nga ko xoolee comme bët bi ngay xoolee. moo may entraîné waat. Mm. man yàlla rek laa gëm. non non mais man gëwuma loolu. dégg gëmoo ko bu bu amee di ko gëm. non xam ma bëri moo tax ah, dama la laaj rek dama la la su ma kii kii dama la laaj bàyyi ma tontu dama la la bu ma waroon bëri waat Balla Gaye dañuy bëri waat bientôt. kañ la loolu. incha allah bu la parce dañu bëree ba amul kenn daanul. Uh-huh. danoon bëriwaat sans waaw Gris ma ñëw pëtaxlu foofu tuuti ah. parce que effectivement champion nga mm-hmm. te wax dëgg yàlla def nga fi lu jar ñu naan la champion mais Gris euh, dañ leen xamoon ci Fass dañ ko xamoon ci maanaam boo dégg ñu naan Fass écurie bu mag la mm-hmm. dañ ko xamoon ci demoon na sax ba Tafa Gueye à l'époque da doon wax ni j'attaque je cogne et je gagne mm-hmm. bi nga ñëwee ñu jox la bloc bi macha allah ñu gis la ci loolu Gris day ñëw attaqué la taf taf mu tamaate la say bokku la nga yóbbu waaw ñu dem ba benn moment boo xoolee sa dernier combat yi nga xam ni moom nga mujj a bëre bu ci mel ne ak Modou Lo ak Balla bu Modou bu Modou moom xaw ma consigne nga ma calcul parce que da nga mel ne lu ñëw euh, téye sa bopp. Euh, loolu jaaxal ma trop trop. mais bu Balla aussi tamit euh, gis nañ ni sax xëy na xaw ngaa yëngu foofu tuuti mais giri ban daan gis à 100 pour cent te ba muy bëreeg Eumeu Sène taf jaag xam nga sànni kii taf taf jooju loolu lu tax mu dañ lan la. combat amoo tey làmb moom maanaam bi ngay wax moom lañ ñëpp moom lañ mës a ba tey presque sax moo ñu inspiré ñu dugg ci làmb bi mu nekkee jeune lutteur amul j'attaque je cogne je mais dem na ba am benn expérience ci làmb boo xam ne tey làmb ju bu ne ak na ma koy parce que tey fougue de jeunesse boobu. j'avais ay vingt vingt vingt ans vingt vingt cinq ans trente ans. bu conseil sax boo ma conseil dama naan waaw rek. <laughs> waaw rek laay wax mais arbitre bu sifflé bu arbitre sifflé moom. li ma war naa ko def parce que mais nag mm-hmm. expérience léegi làmb bon bëri naa combat yoo dama ko perte. li ma ko perte tey bu ma demee ba sama kër dama am lu ma naqari. parce que li ma waroon def bu ma ko bu ma ko defoon. comme ban combat. comme ban combat contre euh, Modou Lo wala. parce que boobu ñu bari dañ ñu giri dafa téye bopp. waaw kon li ma la wax rek mooy tey am na combat yu bëri yu ma perte. benn u ñaar yoo xam ne tey leer na ma ni man su ma bëri bëri woon ak su ma su ma maturité dana ma permettre ma am ci ndam. tout récemment sama combat ak Modou Lo moom la ñu bëree. boo gisee énervement laa ko bëree. te pourtant dañ na ma taxawal xaar ko. tôt ou dafay ñëw mais boo xoolee bi ñu defee première corps à génn dañ ñëw soo gisee maa ngi ñëw mel ni xam nga boo gisee ni ma def li ma demee ba toog ba toog si télé bi seetaan télé bi laa xam ne li ma def nii kenn mënu ko expliquer comprendre yooyu c'est des choses yoo xam ne parfois da nga naan tey ma di consigne bu bari rek da ngay ma benn instant tamit dafa am bis yoo xam ne day nekk ay bis yu diis yow hmm. kon sama combat Balla Gaye bi mu mujjee bëral combat la boo xam ne tey musuma bëree combat bu diise noonu ci man combat bu diise ci yow trop da mel ni ku maanaam loo bëgg a def rek da nga naan wóorul te pourtant man sama adversaire keroog maa ko gënoon jekk ci côté yëpp billaay wallaay maa ko gënoon jekk ci côté yëpp bu ma demee ba toog ci sama kër seetaan combat bi am na ay regret yu bari loolu nag expérience la ci làmb parce que mënoo dem nag ba làmba yàgg ci am ci yenn at yi ba pare nag di ñëw di jël sa combat di ko taxañ taxañee ci ay minutes ak yooyu ba pare nag mbooloo mi lay topp nag stade amitié di nekk soixante mille soixante mille places presque ndakaaru jóg parce que ni nga ngemboo ñi da nga meloon ni ku bañ ku jàpp sa ngemb li. Ah. dégg naa am na yow ci ñoo bañ ku jàpp sa ngemb <laughs> waxal. mais mais ah. mais Pape yaa ngi suivre léegi ah. ah waxal. ah <laughs> waxal. non ngemb li ngemb xanaa xam nga dafa jaaxal ak sama adversaire bi. ngemb lee jaaxal ñëpp. <laughs> Balla Gaye keroog bu may bëreeg moom. parce que moom sa sa adversaire ba tey mënul jàpp ci ngemb li. waaw parce que mbër mbër mi jàpp la. dafa bëgg a jàpp bu jàppul day am problème ci biir bëre. d'accord moo tax combat bi jëm nag yóor yóor na fu nekk mais ni ma takkee ngemb bu mu gisee ngemb rek dafa jaxasoo. ok <laughs> ngemb lee ko tiital. combat bi 9 heures laa demee sax 9 heures. kon da ngaa a ngemb. mais euh, voilà. xam euh, euh, ah, nga di wax ci ngemb lu yàq yu yàgg ci yaram. lu koy def ci wàllu bien-être ak Mado Bakary. allez-y Gris Gris man li ma la bëgg laaj mooy. ngemb lu yàgg lan moo taxoon nga lan moo taxoon nga dàq lan moo taxoon nga dàq ki ki ki nga xamante ne mooy Balla Diouf bi ngay waajal sa premier. dàq mais da nga ko Balla Diouf da nga ko dàq. dàq laay nekkee mbër. non non non. Balla Diouf Balla Diouf lan moo tax nga écarté ko lan moo tax nga écarté Balla bi ngay waajal sa combat ak Modou Lo. je te un exemple rek. yow nit man nga nan nga mën a bokk ak métier bi ngeen di ban droit nga am ba koy dàq. mënuloo non mais defoon nga ko. mais écarté écarté nga ko écarté non. si non loolu mënul ne. Hmm. écarté du da nga ko mën a écarté. loo ko def loo ko def et puis na sax naan moom bal moom ci boppam moo la indi écurie Fass ça j'ai entendu euh, spécialiste yi wax. yow lépp nga ànd lépp moom ñoo cheminé noonu depuis longtemps. nee naa la écurie yi ngay gis yëpp day mel ni par parfois day mel ni mbàccum gerte ci biir écurie bi. mais doo dégg kenn du wax. écurie Fass kay moo nekk comme li ma lay wax rek. moo nekk écurie boo xam ne écurie bu mag la. dem na police sax ndax yow. boo xam ne ni xam nga boo xam ne presse bi ñu lay presse bi ñu lay wër bu ñu bëggee bind presse bi bu ñu bëggee bind face la ñuy dem di limbar ci di limbar ci problème ba fa am même am na problème yoo xam ne sax fausse information moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko sooke ah waaw da ngay bind ci loo xam ne boo bind da ngay jékki-jékki bind benn article ci na problème lii ak lii ñoo xew te amoo ci certitude ni noonu la demee suba nga ne diw woo diw na pour mu démentir yooyu mooy yan mais Firi Fass billaay wallaay yeneen écrits yi ko ay problème foofu mais yàlla mi mën di xam ne mbëri dañuy gérer seen bopp xam nañ fi ñu jëm. Mm-hmm. man lu ma la bëgg a laaj. Euh, mm-hmm. Gris mooy que euh, des fois nga ñëw ci làmb. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek niñ naan les jeux du stade du ànd ak yow. Euh, dem na ci ba ci Sitor. muy arbitre bi nga xam ne Gris dafay taxaw ne du bëre moom du ko arbitrer lu waral loolu wala euh, comme ni nga ko expliqué lan moo tax ngay choisir ne arbitre bi du arbitrer sama làmb ndax day nekk ne mbër dina egg si benn bis ci stade euh, tollu stade boo xamante ne comme ni nga ko waxee sànq rek tey du doon bis bi ba nga xam ne lépp day tënku ci ci ci xeex bi la bokk wala nan la demee lu tax tout temps temps Sitor lan mooy sa problème ak moom. Babacar la tudd defe naa moo la arbitré woon contre. mais ku la jox na yow kuy wax yow si non non Pape dafa moo la yow. man maa ngi ni takku ma dara xool ma non man daal ordinateur bi rek laa am na lu nekk am na lu nekk Babacar. arbitré na ku lay dee arbitré woon moo ko ma seen. moo ko ma seen léegi na dootu ko arbitré. lan mooy seen problème yow nag yàlla koor weer koor la nekk de. <laughs>

ak <laughs> général ah. record sport <laughs> donc bokkuñu bokkul dafa <laughs> géy la ak Gris man man franchement li ma bëggoon mooy Gris bëri nga tontu ci Babacar ok di guitare nag waaye gi am àndul li mbay bi dàq guitare mënu ko maanaam tey comme li nga wax noonu kii il parle de Babacar Babacar la bëgg wax su tey da ngay bëre ba pare euh, arbitre yi ay nit lañ comme ñëpp ah la moo tax ñu indi. vaar bi mhm. moo gën a compliqué. Mhm. tey dañuy indi vaar. Mhm. tey pour affaire yi gën a te vaar bi am na lu mu servi lu bari. arbitre yooyu ay nit lañ comme ñëpp. day ju des fois da ngay dem ci combat. des fois da ngay perte combat nga dem sa kër toog yow kenn cot dong nga xool visionné cassette bi nga xam ne arbitre bii. arbitre wu benn yoon. Mhm. arbitre na la ñaari yoon perte na lool ay combat ci ay avertissement. Mhm. man mun naa la limal sama ay combat yi ñu naan defet la mhm. man jàppewuma ko defet parce que ci man nañ ma war a te nañ ma war a joxe avertissement joxe wuñ ma ko. lu bari combat yoo ay ñaari combat ñett yoo xam ne ay avertissement laa ko perte te même arbitre moo ko arbitré. kon boog man war naa jékki-jékki dem ci benn arbitre bii wax dëgg yàlla parce que combat bi defe naa ñëpp ko apprécié woon Bakary ah, donc euh, fan la erreur ban erreur la ci gis quoi ban si bii nii ñuy gis nii non combat bi est-ce que xam nga est-ce que xam nga combat bi 4 millions 300 ci dagg te nee na nu moo dàq ci combat yi ne ci sama combat yi c'est ça ñëpp apprécié combat bi ah, combat bi amul benn 4 millions et quelques ah. sama combat euh, Balla Gaye 5 millions et poussière xajoon ci man te pourtant nee na nu mooy combat yi dàq ci ci sama est loolu mais man li ma li ma la bëgg laaj. Euh, Gris li ma la bëgg laaj bëri nga ak mu euh, ak euh, Eumeu Sène mu daan la nga bëri ak Balla mu daan la. selon yow Balla Gaye daanu ma. waaw mais bon. Ah, verdict waaw verdict voilà léegi. yow bëri moom wëlbib gang la. waaw bëri dama lay toog sa kaw. Mhm. wala ma dóor nga daanu. mais arbitre nii def li muy nekk yëkkati loxo kii na avertissement am na ñaar loolu du daan. waaw léegi yow selon Gris Bordeaux Balla ak Modou kan mooy le meilleur. ah mbër boo bëree ñaar yoon daan non non man yow laa koy laaj ah. ak ñoom ñaar yëpp. ah Pape nee ci xaalis bi bëri nga ak ñoom ñaar yëpp. ne wayaan bi laay ah, yow ñaari mbër yoo xam ne yàlla man les meilleurs. Hmm. kii bëri moom daan ko ñaari yoon. daanu ko daan bu ñuy yëkkati ay loxo daan ko ñaari yoon mooy laaj ko lu mel. damaa bëgg wax loolu ko ah. question yu gën a. Isaac bàyyi si. <laughs> mais Gris man nga am benn gestion bu individualiste boo xamante ni ñëpp dañ naan da nga compliqué bëgg affaire intellectuelle est ce que du loolu aussi moo tax finalement ngay am moo fi ñu dem ci sa Fatou nag bon xam nga tey mbir parfois mbir nag on est très ci nekk nag ak li ngay incarné hmm. xam la Tyson bi fu nekkee indi istilam dañ naan dafa bëri titre daa soof parce que gars yi bëgguñu nag quelqu'un qui est instruit yi bëgg rek ngay nekk fi di mel ne ku naan ko wayee di yooyu moom ça dépend ñu ko bëgg. dëgg la man de doxuma ci loolu nag. Mhm. bu nekkee loolu moo tax ñu naan damay jaay intellectuel damaa yéegi. Mhm. loolu boobu bëgg naa ci. Mhm. Medina laa dëkk. hôpital Abbas Ndao laa juddoo. dëgg la. en plus j'ai fait les bancs. quand même très bien. ah loolu moom mooy loolu. xam ku nekk rek ak li ngay incarné Tyson lu ne waxal nañ ko fi non dafa lii te pourtant macha allah tey boo dema fekk ko ci ay xool ko nga xam ni la ma doon la doon def <laughs> mooy loolu li ban combat la la gàllaaj jàpp ba nga yëg ne gàllaaj jàpp na la yow gàllaaj da laa intéressé trop gàllaaj mosuma jàpp muy ma ay ci ay gàllaaj lay dox moom muy ma gàllaaj mosuma jàpp wuy ma Pape galaaj lay wër moom galaaj la dox. ne man galaaj sosal moo sosal dama koy sosal. dëgg la moom wuy ma ko gis xam ne galaaj nga parce que sa ngemb li tàng taxoon Balla Gaye jàpp ko. giri rek la ko ngemb du garaaw li mais ngemb leen tàngoor. galaaj laay bañ mu ñëw fii <laughs> xam réglé leen ko seen biir rek. non mais yaa nekk suñu diggante. Suisse dafa net. man nee naa la depuis sax Bakary laa ruus sax mais man maa yore service wayaan bi. Pape bàyyi ma gérer génn. xam naa ni <laughs> Pape yow mën nga yaa ngi ci biir moom dañ ko yabal ci man. dafa lakk la xamul lii lu mu mbax ma ngeer ko. jaajëf waay moom tey ma baax nga ngeer ko tontu sama question. question rek la waaw wax ma loolu waaw. mais mais ànd ak dal ci question bi yaa ngi mel ni ku am combat. man mami fayul fayul fayul du nekk xam na ne mami Linguère Diop moom égal à mami Linguère waaw mais defal ndànk amuñu combat ak yow defal ndànk dama ne xoolal ma relax face à face jubbu bi nga xam ne soo ko ma ñoom ñaar nii la ma àdduna xamee waaw maa ngi lay dégg waaw maa ngi lay jigéen nga mais jigéen nga non du jigéen du ah, góor ah. mbir mi affaire de feeling da nga am da nga am kii quoi mais bismillah soxna si combat la la wóor avant combat que ne yow gàllaaj jàpp. gàllaaj mosuma jàpp. après combat bi que ne jàpp na la sa ngemb lii ñu wane sànq tàng tax Balla Gaye jàpp ko mais du mot du du tàng ngemb ko ngemb ngemb ngemb séeréer ngemb am ngemb yoo xam boo ko ngemb. waaye dugal loo xam du mën a téye. Hmm. mais ay ngemb loolu dama koy dégg rek man mosuma bëri sant ni làmb gàllaaj jàpp mais kon lan moo tax ngeen di sonn ci gàllaaj noonu bu fekkente ne. mbëri gàllaaj yamul man musuma man musuma liggéey mbër. man Gris Bordeaux musuma liggéey mbër. boo leen di bëree ji li ngeen di sangoo ak yi ngeen di. aar suñu bopp bi bët yi làmmiñ yi ni tànk ba toll loxo ba xool ko maanaam yooyu. jar na ko. ci yooyu la ñuy muslu. yonent bi bët ak làmmiñ la gënoon mus. mais contre bombardier bëy ngeen jël di def ko ci sa ak. indi yaa ko gis. Pape ragalal yàlla maa ko fekkee nii. kullal kullal xaq walaw kaana murran Pape. Pape ragalal yàlla bañ nañ ko la ñu indi keroog. Pape def nañu gën a garaaw yooyu moom ñëw na fi ci làmb ji ñu takk ay loxom bam ne loxo yi jógul. Pape yow buy ma xamoo moom mooy dox ci dara moom yëpp ma xool moom yow ma a ma jël reporter yow moom baax ngay doon <laughs> mais Pape mais soxna si doo doo xam moom moom ci naka di tudd. Ruba Linguère ah. Ruba Sey Ruba moom ci boppam moom affaire yi intéressé na ko de xam naa ci moom affaire yi xam naa maîtriser na ko. day enquête moo tax. non de kii non am na lu ma am na lu ñu ne ci moom. non lamb ak ak ak mystique ñoo am na lu nekk ci man dëgg la Koba Diop ga nga jaar ngemboo fa Moussa Faye ngemboo fa. Euh. Euh, ak magam mbay Gueye foofa laa dëkk. Ah, foofu nga dëkk Kooba. Kooba laa ah, ok waaw moo tax <laughs> xam naa léegi. <laughs> Ah, xam nga day noppaate rek. da lay nappaat léegi en attendant mu lay napp ci suuf. doo bëggoon ñu fekki waat euh, soxna Ndeye Fatou Niang fi mu toogee toogaay bi yàgg na ñu ngi ciy jéggalu bu baax euh, euh, di amati mbégte rek ci teewaay bi am na ay point yu des nag on parlera de Sadio Mané. li tax ñuy waxtaanee Sadio Mané munoo am euh, Bakary toog fii euh, Mamadou Ndiaye munoo am Bakary ba pare te doo waxtaanee Sadio Mané voilà internautes yi sax bi ñu gisee Bakary toog rek ñu ngi ñu ngi ñuy poser ay questions lu mu bokk ak Sadio. <laughs> après ñu ñëw ci. <laughs> kii mooy kan ci Sadio Mané après ñu ñëw ci. wax ko ko rek mooy kan ci Sadio Mané. <laughs> mooy bras droit kii mooy léppi Sadio daanaka Sadio Mané toog nii donc on parlera de Sadio Mané avec euh, di ngeen découvrir balaa ngeen di tëdd une bu record bu suba incha allah. voilà et puis on va finir ak yeneen point yoo xamante ni internautes yee koy yónnee euh, pour euh, Gris Bordeaux il est très gentil nit ku baax la ba noppi itam euh, di borom alxuraan ci li mu jàng ak ñun lu ñu fekkee parce que ñun nag ay kaw kaw lañu ñu Thiès la ñu jógee ak Ndar mais miin nañu Fass yàgg nañu fekk ko fa moom ci taxawaayam ak ci nit ku yiw ku baax ki mu doon loolu moo tax tey ñu dalal ko ci quartier général bi puisque ñun nous recevons tout le monde amul politicien waykat képp kuy kilifa te nekk ci réew mi euh, am nga place ci euh, jotaay bile lee j'en profite juste pour vous dire que bu fekkee woote ngeen léegi nii euh, suukaru koor yi jeexagul 88 628 22 22 ak 88 628 04 05 88 628 65 65 50 000 moo nekk ci enveloppe yi euh, euh, télé yi jeexagum na maa ngi xaar yeneen télé xam naa fii léegi suba parce que ku dugg rek télé moo lay gënal donc du coup télé yi ma yoroon yëpp ci stocku jum yaa bi joxe naa ko suba ñu ngi xaar yeneen tele di xaar itam yeneen téléphone portable bu ko defee ñu jox leen ko suukaru koor en plus yi des nag. nag yéen a ko moom micro-ondes mixeur machine à café 88 628 22 22 je rappelle que émission bi euh, yéen a ngi koy déglu en même temps ci King FM 99.4 première radio digitale du Sénégal yéen a ngi àndandoo ak ñun itam ci www.igfm.sn euh, bu ñu àggalee cant yi dañ leen di bàyyiwaat ak euh, soxna Ndeye Fatou Niang moom suñu baay baay Ablaye Niang defe naa tey ñëpp bég nañu ñu ndokeel ci taalibe yëpp ak yéen ñi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média j'ai l'habitude de dire que lu mu guddi guddi ci euh, télévision euh, Futur Média ngeen di euh, fanaan kon soxna Ndeye faatu ñu bàyyi la nga dem ak ñun ci yeneen i cant. Salli ala Seydina Muhammadu Seydina Muhammad والهمام ترسما بابا يا سبقا والخدمة مني تقبل خدمة وتربي تقدم هايدا يا منير الأقمة يومك زاك خيار الرمي مصطفى زاك منير الرمي يومك زاك سبيل تلبى تدبول سبيل زاك خيار الرمي مصطفى زاك منير الرمي sabilu tallaba tabibu ahlu saqama neena yonen zaka xiyaaru arraba mustafa zaka muniru arraba jëmbak zaka sabilu tallaba tabibu ahlu saqama bi saliyala babil uday dab nay madamu le nadaya laysil idama radaya babil ula wal karama دائما على النبي ذاك المكين والمتين ذاك المجير والخمين بسسنا وترما جنبي ذاك وين والمجيد وهو المقر والهيد من بسقامة يقود إلى الجنان من هما جنبك صلي وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البصير والنذير بنقم ونعمة وسلم وسلم يا قدير على سراجك المنير باي بصير والنذير بنقم ونعم شيخ منتقاك باغ سلم وسلم يا قدير على سراجك المنير باي بصير والنذير بنقم ونعم جنبي ساك رسول رأته وسكر مرأته وسكر سلف أمسك الرسول من همه جنبي صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا يا على البيت أحمد هايدا وليكن بني أنا يا المكالي جميلا زائرة وباتني بتايرة يا ما ينتبه هايدا بجاي ولا منه يا المكالي يا بلدي أميلي أني على المسبلة صلي بكل كمالة وسلمن يا بدا على المتع والمجاه شكر المشفى والشفايا حبيبك المفقمة تنبي سلي على أبو مجالي يا من أمام خجلي وإنك هو جلي وإنه تقدم قدم سيرك فلو سلي على

يقل لنا يا ابنا منا تقبل كتبنا هايدا بالمستوى كسلما جنبي صلي وسلم على من قد جاب بالبرايا يوم ألست أول هايدا قبل سوي تكلما جنبي صلي على خير الرسول يا من به يخبي بسولو في العال وسب الأدالة وتتقبل يومك أبنية كون قلمي زيارة مقدمة وابتبي تخدمة يا بلا أذن ولمة يوم كسل على خير النبي خد الورى بأدبه يا من كفى ba ñetti kaala yee xadu daa tali sabay sa jee bi xayri zikril akimo bi rabbi Seex Masamba Ba subhana ma ci nabi salli wa sallim sarbada mu ngi keral ala lazi xabtu ridaaya bi laylatin xadu lidaaya duglet magal Mustafa salli wa sallim sarbada ala lazi xabtu ridaaya bi laylatin xadu lidaaya ترقب منيتا على الذي خط الردايا بليلة الخلو لنا il bégal ba ma gisee la ma taxaw sëñ Fallu noo ngi taxaw ci sa ginnaaw bàyyi mee jublu la wan ñeneen gannaaw sëñ Fallu foo mën a jëm yóbbaale noo yàlla sa barke fii ba ëllëg yomal xiyaam noo ngi taxaw ci sa ginnaaw bàyyi mee jublu la wan ñeneen gannaaw sëñ Fallu foo mën a jëm yóbbaale noo yàlla sa barke bàyyi Cheikh Abdou Karim sa waay du ñëw la gëm di gëm leneen non oh, sa diine doy na xam bi bég sama baax noo ngi taxaw ci sa gannaaw bàyyi mais jublu la wan ñeneen gannaaw sëñ Fallu foo mën a jëm sa barke ma la gëm sëñ Fallu boo nu joxoon la nu yoroo xanaa yóbboo ni yaru defoona xanaa yëgoo ni yaru naa yoon sarax naa tasat fa bay benn boobu joxoon la nu yaru bay benn dootu nu def la nu defoona xanaa yëgoo ni yaru naa yoon sarax naa taxar nu benn sëñ fa lu boonu joxoon la nu yaru bay benn dootu nu def la nu defoona xanaa yëgoo ni yaru naa yoon sarax naa taxar nu benn li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku weerul murit am kilifa li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku weerul ci murit ku weddi li demal la daan isa di mbër moo man nu gan yaram la wute nag sa gaan bamba ko ñaan ci xat nu bee ci murit ku weddi li demal la daan Omar nu gaano yaram da wute nak sagaan Bamba ko ñaan ci xarnu be jërëjëfati Serigne Touba jërë am maam Cheikh ah da ngeen ñoo bëgg a rey <laughs> macha allah macha allah ah yal na yal na yàlla wéral baat bi waay amin amin amin amin te benn njaboot la waaw xol bi xol xol xol xol njabootu Baye Ablaye Niang loo ci loo ci bëgg a commentaire da ngay xeeb donc da koy xeeb en fait li ne ci suñu xol yi ñu bëgg ko wax jëmale ko ci ñoom bëri na te lii doy na waar daal. am li may li may doomu doomu mbër demal jàngi bëre. wallaahi yàgg yàgg des na la ñam. billaay wallaay. Mhm. sa xel day dem ci eh, papam bu tedd ba macha allah bu musaana takk ndigg li ba taxaw sama xel tey dafa sori dem ci sama maam ah way yi boo ko déggee rek moom lay dem taxaw mbooloo mi muy àndal ci ginnaaw waaye boo ko dégloo rek xam ne ku jur doom rek jugoo fi yàlla na yàlla wéral baatam yàlla guddal fanam ah yokk ko ba mu yëg ko parce que kenn ku ne am na loo yëg tey macha allah ah. ñëpp kontaan ñëpp kontaan ku lim juum ñu ngi ñu ngi ñu ngi jot yóbbante yëpp te euh, tombe naag ñu dëgmal festival salaam mu nar a tàmbali bu yàggut dara euh, euh, soxna Ndeye Fatou programme yi bëri na actuellement de. <laughs> waaw sant yàlla baax baax. macha allah di julli ci bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Cheikhul Khadim. Mm-hmm. di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine. di ñaan sunu borom bi Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér di ñaan Cheikh Béthio Thioune jàmm Serigne Saliou yàlla yokk ay leeram tàbbal ko àjjana te yërëm ko di ziare sunu sëriñu baay muy euh, Serigne Mbacke Diop Kalsaan mhm. waaye ki ko fi toogal di Cheikh Bayla Diop mhm. euh, borom Kalsaan Diop kooku la sama baay yaakaar tey ak waaye di sant bu baax sunu ñaari waajur waaye di sant sama borom kër sëriñ moo Modou Ndiaye bëgg fàllu waaye di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde entier bi di leen ziare yéen ñi toog ci plateau bi yëpp di ziar sama xarit yi nga xam ne samay soppe la ñoo ngi di toog euh, soxna Mado soxna Mami ndeysaan ak euh, doyen soxna Kebs Thiam soxna keneen ki Bijou Bijou Ndiaye uh-huh. Euh, keneen ki nu mu tudd Maymuna Gueye Bambalo soxna Maymuna Gueye ak ñi toog yëpp Gris Bordeaux ak sëñ bi ñu invité moom tam sëñ Babacar ah, Cissé sëñ Babacar ndeysaan Cissé sëñ Bakary Cissé wallaay waaw waaye tamit jaar Pape Cheikh Diallo nga xam ne ñoo bokk Serigne Fallou. Mhm. li tax mu bëgg la mooy dangaa bëgg Serigne Fallou. moo waral sama coow li. waaw ñun Serigne Fallou rek. mooy sama wifi mooy suñu lépp. moo ma jox connexion bi. moonu. daal di <laughs> rafet yi ñuy sol sax ci xéwal yi montre yi takk ci xéwal yi. ndeysaan ndeysaan lépp ci xéwal yi émission yi ñuy def ba ñëpp di ko toppandoo di ko def ci xéwalu Serigne Fallou. waaw dañuy dañuy ziare bu baax tey kontaan bu baax nag. Mhm. ni ñu ñëwee ci émission bu rëy bi nga xam ne tubarkalla. Mhm. yàlla na leen yàlla lafal cat. amiin amiin nga xam ne bu koor gi jotee moom ak festival salaam bi nit ñi dañ koy toog di ko xaar. Mhm. Euh, ñun ñi ñii sax dañuy toog di seetaan. macha allah kon ñoo ngi sant yàlla bu baax bi ñu ci yàlla boolee. Mhm. waaye di sant bu baax El Hadj Maodo Cissé mi nga xam te ni tubarkalla moom tamit. moom mooy. course jàngkat yi. wallaahi waaw képp kuy tagg yonent bi maa ngi lay siyaare bu baax a baax. lay jox sa wàccuwaay. Uh-huh. waaye di nuyu képp koo xamante ni soppee baay Baye Ablaye ñanga uh-huh. waaw ndax man ñi sopp baay Ablaye ñoo ma sopp. dëgg la kon bu ma santee ñooñ rek sant naa. tey sa baay ba. waaw ñu ngi koy ñaan a gudd fan gu ànd ak wér gu yaram. amiin di wax ni ko nit ñi fonke uh-huh. nga xam ne boo ko tuddee ñëpp ne eskay loolu nag pas-pasam moo ko joxoon ñoo ngi ñaan sunu borom bi dimbali nu ba nu am pas-pas boobu mbaalu ko ëpp ñoo ngi koy ñaan di ñaan euh, ñi nga xamante ni ñoo koy bëgg di ko bége kenn du leen ko wax barki demb rek laa Kassa Samb def lu rëy tubaar kàlla macha allah te du bis boobu rek la mas jot teraanga yooyu de déedéet Serigne Touba moom liggéeyal ko rek te bàyyi kook sa bopp waaw liggéeyal ko rek te bàyyi ko sa bopp boo ko defee mhm. moom moom ñemewul bor dafa am pay waaw li ma wax bërki démb yan saa yi su may wax damay aalu mhm. waaye comme li sañ bi wax rek Gris Bordeaux li mu wax ni moom sañ na wax ni xaalisu alxuraan lan ko ngénte mhm. ñun noonu la ñuy def macha allah lépp xasida la mhm. dañ koy sant yàlla bu baax waaye di sant suñu waajur sant góor ak jigéen nag suñu waajur yi nga xamante ni tubaarkàlla baay bay barke bi waaye yaay yi ñoo toog liggéey ba am na ci kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax waaye di sant mboolem koo xamante ni rek yaa ngi jàpp ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def mm-hmm. ndax jàng xasaayit ngay jigéen dafa metti lool surtout air bi tubaar mm-hmm. tubaarkàlla bi ñu koy soog a tàmbali sam papa daf ñu daan wax air bi air góor la di ñu jàngal yeneen air mm-hmm. ba tey jii suñu borom tudd ci lii tubaarkàlla macha allah te am na ay doomu góor yuy jàng tubaarkàlla ñoo xamante ni fépp fu sam daan teg tànkam ci baas nga xam man nit ñi dañuy def erreur ndax man. Hmm. sam papa da. Euh, ñi ko ñi ko ñi ñi nga xam te ni ñooy fanaane ay baasam. ñooy hmm. ñooy ñi mokkal jës bu ba mu jeex. mokkal mu xad mu xaddimaat ba mu jeex mokkal muwaay bu ba mu jeex. Hmm. ñun dañ ciy nab nabi rek. yàlla nag mooy def loo xamante ni loolu kenn mënu ko expliquer. waaw loolu la waaye moom doomam yu góor yi tubaarkalla macha allah ñoom ay aw nii. kii kenn la ci ñiy ànd ak sama mag boobu di Serigne Modou Niang mm-hmm. nga xam ne tubaarkàlla mm-hmm. kooku nag moo doonu xasaay di nag waaw mokkal ga macha allah yàlla na yàgg lool te sax barkeb Serigne xam nga lu ma bëgg nga may ma ci lu gàtt rek ah. lu gàtt rek ah. li ngeen wax bërki démb ci soxna jaara reprise boobu daf ñu daaneel mag mag Mado di ñu daaneel ñun ñi ñëpp ci ci lu ci lu tuuti rek balaa may dem fekki internet yi bay àggali ak euh, euh, Gris Bordeaux soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam jaara soxna jaara du mel soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam jaara soxna jaara may tambaleeti ci mustawa mam jaara bari ngeen la ki may soxna jaara mam jaara kenn du mel ni mam waaw kay bismilaay may tambaleeti ci mustawa nee na liggéeyal mam jaara bari ngeen la ki may soxna jaara mam jaara kenn du mel ni balaay sa moo defar jumaa jamu maat kër mam jaara la ca tee dal di def daara soga dem donga yaa ngi kenn du ni cam soxna jaara mam jaara kenn du mel ni leen sëriñ Basiiru neex na ma neex naa ko ma loxo ca kaw sëriñ Basiiru neex na ma neex naa ko ma mami sëriñ Mbàkke ku mu neex ajjana nga lay xaar sëriñ Basiiru maa ngi koy neexal mami sëriñ Mbàkke ku mu neex loxo ca kaw mami sëriñ Mbàkke ku mu neex ajjana nga lay xaar sëriñ Mbàkke ku mu neex ajjana nga lay xaar ca murito nan siya nan siyaare waaw waaw képp kuy jullit na nga waaj ñuy siyaare Porokhane nan siyaare je képp kuy jullit na nga waaj ñuy siyaare nan waajal Porokhane nan siyaare je loxo yi ci kaw nan siyaare je ana loxo yi nan siyaare je waaw waaw képp kuy jullit na nga waaj ñuy siyaare macha allah ma doo xanaa kontaan nga <laughs> mu ngoog euh, kon yaa ngi jëm euh, euh, ci festival salaam bi le le 20 mai yéen a ngi Sorano le mais mai yéen a ngi Grand Théâtre loolu moom na ko ñëpp bind ci seen i agenda ci tàmbalik festival Salam nga xam ne dëgmal nañu ko dimanche bi lay door waaye ci loolu nga def rek comme da nga ñëw bégal tey dama lay may benn nataal nga barkeelu ci ñii seetaan ñëpp barkeelu ci Ah, ok <laughs> lii moom xam naa bu doon saako dama la koy jox nga def ko njël. wallaay ndeysaan. <laughs> Ah, ok naa ko ñëpp ñu barkeelu nag ah. mooy général moom. waaw. ku mu neex daal bu la neexee nga jël sa téléphone portable euh, photo sa écran wu télé am Baye Ablaye Niang euh, sunu baay boobu nga xam ne mi ngi ñaan mu yàgg fi te ànd ak ànd ak wér di ci ndokkeel bu baax sunu papa bi ñu koy yónnee euh, di Alaaji Ali Niang Euh, ñu ngi koy ndokkeel euh, bu baax moom suma euh, waajur bu góor la di ku yàlla baaxal di papa Alioune Niang ñu dénk ko ajatu ngoone cuun ñu ngi koy ziar bu baax Euh, Soda Kassé euh, mu Adja Anta Saré moom tamit euh, fa mu nekk bég na Mboño Konaté moom bokk na ci Sénégal yi nga xam ne ñu doonte décalage horaire bi ak France ak Sénégal deux de temps la ñun bu ñu dee deux heures du matin ñoom ñu ngi quatre heures du matin waaye tey yëngal nga ko ba ñoom ñëpp ñu ngi seetaan jëm xëdd jëm sax fajar ci télévision Futur Média ak képp koo xamee ni rek yaa ngi àndandoo ak ñun Mbène jaata ab taalibe Cheikh la waaye fonk lool xas de yi Fatou Niang euh, def mu euh, kontaan euh, njoogu Afia moom it bëgg na yónnee na bataaxalam ñu ngi koy xaar fileeg vendredi ci quartier général bi moom it nii nga def noonu ne la war a def ci télévision Futur Média di nuyu tamit sunu yeneen xarit yoo xamante ni ñu ngi ñuy seetaan àndandoo ak ñun bokk na ci internet yi Mamadou Ndiaye avant réaction yi jëm ci Gris am na ñuy réagir jëm ci Baye Ablaye Niang waaye émotion bi am ci plateau bi Pape Cheikh moo am vraiment ci toile bi comme ni nga ko waxee maa ngi fii ci studio yu 221 yu télévision Futur Média jërëjëf Ndiaye tataane li nga xamante ne mooy euh, message yu internautes yi commentaires yi bari na di wane ni ñëpp a ngi suivre quartier général félicitations yi di joge fu ne surtout ci toile bi boo gisee message yu kii di Ibrahima Diouf moom li mu expliqué moo di y' a pas meilleure émission que quartier général comme disent l'adage rek ku jur doom deewoo ku niru sa baay wàcc nga. macha allah soxna ndey Fatou Niang xol seddati na li wane ni message bii la mooy signifier message yu bare bare bare yi ñu jot actuellement fii ci réseaux sociaux yi hmm. que ça soit suñu hashtag bi di QGTFM Pape Cheikh li am ci plateau bi ak vraiment tey li sénégalais yi di dund moo feeñ ci toile bi macha allah Adja Vassor Gaye euh, ndar ndar la euh, moom it euh, kontaan na mu ngi ñaanal doomam ji di soxna Ndeye faatu Niang bu suñu bàyyi Ablaye Niang bu ñu àggalee nag émission bi mën nañu dem Eh, ci commentaire yu internet yu jëm ci Gris Bordeaux. waaw comme ni ñu koy waxee rek euh, ak suñu numéro téléphone bi nga xam ne dañ koy joxe à chaque fois ci ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi mais surtout ñi nga xamante ni aussi ñooy internautes yi posé nañ question suñu invité du jour di Gris Bordeaux mën nañ déglu vidéo bi te ñëwaat ci plateau bi. ñu ngi nuyu ñëpp Pape Cheikh Diallo di rafetlu sa émission bi neex na trop macha mais dañoo amoon benn question pour Gris Bordeaux di ko laaj dañuy dégg benn un an bu ko aj boo xam te ni avec sursis ñu bëggoon comprendre lan moo xew mu expliquer ñu carrément lan moo xew en plus mu wax ñu ndax am na ay projet après fin de carrière daal bu bàyyee bëree yan projet ndax am na ay projet yoo xam te ni ñu koy waajal gis na ci yu bari dañuy fay xaalis bu après seen carrière loolu ndax mi ngi loolu bu baax waaw ah, ñu ngi koy bëggee bu baax di bëgg eh, eh, eh, euh, reconversion lutteur. waaw loolu moom kuy liggéey rek. Mhm. kuy liggéey rek yaa ngi war nga bàyyi xel ni ëllëg euh, doole moom yàlla la koy jox rek. Mhm. pour benn période moo tax parfois. loolu bokk na ci suñu ay engagement mhm. parce que mbër boo xoolee ci Sénégal mbër rek lañ na quarante cinq ans la ngay retraité mhm. amul benn discipline ci àddina bi mhm. amul benn sport individuel boxeur yi nga gis ay ñoom Joe Frazier ay ñoom Mohamed Ali boxe nañ ba ay cinquante cinq ans làmb rek lañ ne la quarante cinq ans amul fenn ci boo ci bàyyiwul sa xel ak sa entourage parce que ay messi yi ngay dégg ay yooyu yëpp dafa am ay ñoo xam ne ñoo leen di géral koom-koom bi ñuy am pour dem def ay investissement mhm. à long terme pour boo bàyyee ëllëg nga am ci loo suturlu loolu nag équipe Fass wax dëgg yàlla côté boobu am naa ay encadreur yoo xam ne macha allah mhm. commencé ko suma président Abbas Ndoye maa ngi koy ziar di ko béggee le secrétaire général Malick Gueye Ablaye Mbengue Moustapha Gueye Fass moom amuñu problème boobu ci coach la ci nga jël sa xaalis dugal ko fii ndax ëllëg nga mën a nekk à l'aise loolu dafa am importance te loolu wax dëgg yàlla ñu ciy bàyyi xel bu baax. Mhm. waaw. voilà donc defe naa réponse bi leer na ñu dem ci beneen question. ana toog ana toog mu Serigne Fallou ana toog xanaa loxo yee toqi on n'entend rien là. allez on va on va va on va revenir. Euh, ah, allo yaa may dégg Pape Cheikh. waaw maa ngi lay dégg. voilà mais defe naa moom tontuwul ci sursis bi la waa ji laajte de. waaw sur tontuwul ci boobu. waaw sursis ah on a avec sursis. Uh-huh. peut-être bon loolu pour man wax nañ ci ba pare. Uh-huh. mais quartier général moom ñëpp koy seetaan. on uh-huh. a avec sursis dégg naa ko. jot naa lettre bi mais je me suis dit que on a avec sursis. suñu confrontation bi nga xam dañ ko nekkoon ak CNG depuis loolu xam nga waxu daaw. xuloo daaw. j'espère que boo ñëwee di ci revenir à. day indiwaat sax xuloo. <laughs> day indiwaat xuloo te loolu wax dëgg yàlla bi ma ko déggee nii ak suma ay collaborateurs ak suma ay suma staff. Mhm. dañ ne ma bu ci wax. ok bu ci bu ci wax quoi parce que tamit actuellement nii CNG ak association de lutteurs. Mhm. on est en paix. Mhm. te nag jàmmal ci la lépp xaj. dañ doon kaas ay jamono la woon. te wax dëgg yàlla am nañ link ak ñoom. te samay projet à l'avenir en tant que président des lutteurs en activité maa ngi saluer Khadim Gadiaga c'est l'ex-président nit ku brave la woon ci mbir mi franchement suma ay projet dans l'avenir bokk na ci gën a jege CNG parce que am na loo xam ne du ay revendication mhm. link la ñoom ñoo fi nekk mhm. Mm-hmm. ñoo fi nekk ñoom ñoo fi nekk ñoo suñu kilifa. Mm-hmm. kon ça veut dire que war nañ mën a def approche ak ñoom. Mm-hmm. copter des gens yoo xam ne c'est pas des lutteurs. pour ñu gën ñu jox doole. parce que ëllëgu mbër. mbër day bëri tey bàyyi làmb nekk ci ay jafe-jafe. mbër day bëri tey dangay gis mbër boo xam day bëre am blessure bu ndaw. mu yàq carrière loolu yëpp manque ay assurance manque yenn affaire yi ci liggéey boobu laa nekk mhm. ak euh, association de lutteurs ñu may dooleel nag mhm. am ay grands yu nekk ci ginnaaw mhm. des lutteurs yoo xam ne bàyyi nañ bëre mais ñu ngi à l'étranger ay ñoom capitaine PK mbër yi gën a investir ci association des lutteurs c'est des lutteurs yoo xam ne amatuñu benn activité bëreetuñu. ñu ngi à l'étranger di doole association bi. te yàlla na ci yàlla def jàmm. super ëllëgu mbër. voilà beneen euh, beneen euh, question et puis guy gi. guy gi laa bëgg a waxal du Ndiaye balaa ngay dem euh, guy gi sa message yi nga may yónnee te mënu ma ko liir déggoo français bul ma bind bindati message parce que j'arrive pas à liir sa ay message bërki démb ba tey guy gi mu ngi may yónnee ay message mais c'est siffé see xaw ma lan suba dinaa screen message u guy gi teg ko ci télé bi pour nga bàyyi di ma yónnee ay message damay xëdd ba pare 6 heures du matin war a nelaw téléphone bi sonné ma xool muy guy gi mais du ma xam li mu bind quoi guy gi c'est Stephen guy gi xaw ma lan c'est ah vraiment guy gi arrêté la ak message yu aussi euh, sinon waxal ma Adja Woré sama yaay. Ah, euh, ñu ngi koy xaar ci quartier général bi ah. waxu muy vocal. munul munul vocal bàyyiwul. vocal non non munul dara. pas te guy gi munul vocal bàyyiwul. je te jure ay message am c'est c'est siffé guy gi. c'est siffé ba gën a. non ba vocal moom Pape vocal yëpp ndogu mu naan la c'est siffé guy gi. Pape da guy gi rek mais guy gi wallaay sànni xeer naa la ko woon léegi nii de messages que j'arrive pas à lire mais guy gi ñu ngi lay nuyu euh, ñu ngi lay xaar fii ah puisque fii moom euh, ku ne am na fi place donc ñu ngi xaar itam sa yaay euh, Adja Aore Sarr moom itam suñu yaay la suñu xarit la taalibe Serigne Fallou la xam naa ne lu ñu wax ci Serigne Fallou mu bëgg donc ñu ngi xaar sa teewaay ci quartier général bi bi euh, en attendant ñuy euh, euh, dem ci QG boo xam ne spécial maître Abdoulaye Wade la nar a doon. ci télévision Futur Média ah oui il le mérite. am ah. waaw QG ak maam rek incha allah loolu ñu ngi koy préparé dañ leen koy wax rek bu ko defee ngeen mën koo waajal Mamadou ñu demaat ci beneen message ak internautes yi. voilà on n'a rien on n'entend rien ci euh, euh, plateau bi. dafa ne est-ce que Gris do am na beneen activité bu dul làmb. allo Pape may dégg. waaw alo Mamadou. waaw kii dafa ni est-ce que. Gris Bordeaux allo Mamadou. oui. allo oui je t'entends. eh mais ñu jàmm télé la rek ngay rajo nii ak mel ni ku ne Tambacounda te ñu ngi fii à deux pas. maa ngi fii ci studio ngay dëggal 221 bi noonu dañuy foo arrêtel muy dëggal 221 bi studio 221 mel ni sori allo Pape. oh tu es à deux pas de moi yaa ngi nii sama kanam. dëgg la. <laughs> bu ci wax loolu yëpp nag. waaw d' accord donc il dit quoi kii est ce que Gris am na beneen activité bu dul làmb. d' accord. waaw maa ngi ci maa ngi ci agriculture. élevage ba xam yooyu lu ma neex la. wàllu te loolu nag boo xoolee mooy. yaa ngi ci courant bi it. Ah. ambassadeur itinérant du courant. non liggéey boo gis am na liggéey boo gis am na danger. c' vrai. non travail boo gis ci ngay accidenté. courant li ci ay euh, personnel u kenn xamul mu toll. dëgg la liggéey boo gis am na danger. man dama nekk macha allah dama nekk peut-être <laughs> peut dama nekk ci milieu boo xam ne peut-être sama tur am na fu mu yegg rek mais tey euh, courant li mu def euh, ci euh, ci ay agent wu Sénélec kenn xamul mu toll. 221. comprendre nga mais maa ngi ci allo Pape. Pape sois sérieux waay. waaw d'accord d'accord sois sérieux s'il te a des <laughs> parce que parce que gis nga Sénélec. Mm-hmm. seen agent yi. Mhm. li ci courant jëflanteel dafa bari. bari na dëgg la dafa fekk rek. Mhm. métier bi ñuy def moo ñu may tur ba nga xam ne bu dara dalee suñu kaw. Mhm. day siiw. te occasion la tamit. ñu ba ñu ñu gën a bàyyi xel ci courant. parce que tamit boo gis nga actuellement nii quoi qu'on dise gis nga lakkum marché yi nu mu bëree. kenn xamulul xam cause bi lan la. parfois da dugg ci ay euh, kër nga gis installation yi bricolage yeeg jaxase fil yi. kenn xamul parce que bëri na ay kër yu tàkk yoo xam ne ay branchement ay jaxase ay courant moo koy def boo gisee Senelec ni ñu ciy def benn benn communication boo xam ne tey di communiquer de gauche à droite pour que nu boor a bàyyi falsifier bàyyi jaxase ay fil jël fil neutre jaxase fii tamit yooyu parfois day indi ay problème boo gisee mar lakku marché yi quatre-vingt-dix pour cent yi yooyu parfois da koy indi. voilà donc que loolu loolu loolu leer na euh, desaat na message Mamadou. des na benn après on retrouve une bu record suba. oui waaw des na des na des na benn bi mooy bu mujj sax kii dafa ni est-ce que Gris Bordeaux euh, pare na pour may booy chance ñu ci mel ni ñoom Ama Baldé pour éviter année blanche. Hmm. waaw année blanche moom moom mënul lekk lu du wërsëgam ah man moom wax dëgg yàlla man làmb moom dama lépp lu ci xew dama koy jël avec philosophie. Hmm. nekkuma année blanche ou pas pour man bu ma waree bëree ren. Hmm. danaa bëri. su ma warul bëri nag mënuma parce que tëgg lu ma sama bopp du ma promoteur. promoteur yi ñoo lay tëgg. ku sañoon nag sa métier mu làmb mooy sa gagne-pain. mbëri amul ku bëriwul doo fayeeku. te mbër boo gis li nag ci ginnaawam wax wala man rek mais charge yi ne ci ginnaaw. kenn xamul mu toll. tey mbëri quatre-vingt-dix pour cent yërëm naa Balla Gaye yërëm naa Modou Lo yërëm naa keneen ak yërëm naa Tapha Tine keneen ak keneen parce que tey mbëri li ñuy joxe sukkur koor kenn xamul mu toll. Korité day waaj a ñëw événement yi xewee nii gars yi dañuy mais loolu nag sant yàlla la rek. Mhm. damay wax ni sa làmb moom. Mhm. bërek say morom bërek say mag. Mhm. bërek say rakk. tey sa sama rakk yi. ku ci wane sa bopp rek ma bërek yow. mais ku ci wanewul sa bopp moom du ma bërek yow.